jëf yow mi dox dolli Macky yàlla na la ci yàlla jàppale yàlla la ci yàlla defal ndam Macky yow itam nag ah ku lay dolli dolli ko rek. waaw ah, am déet <laughs> ku lay dolli dolli ko rek. bu ko mu nekk dollent soxna Marème yow itam gis nga ko am nga benn membre fii bu ñuy wax euh, Babacar Pascal Faye njon kon nag bàyyi ko xel yow itam booy ñëwati rek na ko yëg ngeen ànd rek loo bëgg a yónnee ti yónni ko rek kontaan nañu Marème nag ñaanal ko man moom laa faral. Ah, am na bés may tooñ mag yi ne ko mare mii loo am ci daar yi gërëmee ko mu ne mën a yokk nag waaw far nekk yi yokk bi Pascal la koy def si te mareem ku baax la xam nga lu tax dama ko gis ci politique bi lali passé woon ci jamono yële waxuma avant ma bii passé de ba jëkkoon a passé xaw ma lu mu doonoon référendum bi du boobu la woon nga gis ko ñu wane ko ca Saint-Louis ca ful ba ca ah non Mariam ku baax la waaw di xaril jëkkëram waaw kii ñëwaat nu mu tuddati législatif yi nga gis ko ca ndar képp ku mu yëg ne jubluwoo borom këram wala ñu ngi la bëgg a dévier Mariam sol dàllam waxtaan ak yow ba delloo si la noonu la ñuy dimbalee nit ah noonu la ñuy dimbalee nit noonu la ñuy dimbalee nit kilifa ku ko yéene ndam doo ko doo ko dàqal ay nit te dañuy wax ne kuy togg boo ko bëggee dimbale dee ko jox matt mu wow matt mu tooy mën na koo wànnenteloo loo cinam du ñor waaw kon wuutal matt mu wow de ko dimbali lii nga def nag dimbali président la dimbali soxna Mariam la ko defee tabaarakallaa kontaan nañu euh, man damaa mënul politique ay kon fa Mariam aw rek ma ànd ak moom ay ma <laughs> lool waxoon naa ko sama doom Kumba ma ne ko boo demee neel Mariam ndax benn waaye daf ma noon yow bu ma doon campagne du ñu ànd ndax sëg dëgg arrangé wu ma bëgg nga toog rek di ma ñaanal ndax yow fu ñu ànd nga yàq ko waaw moo tax man mënuma politique waaye nag yàlla ku baax la yàlla mën naa def lépp yàlla mottali yéene yi bég nañ ma wax ko ci turu waa nag ñoo organiser lii mu wax loo ma ma yor seen kàddu du sama tur turu waa Thiès laay waxee waaw ci turu waa Thiès laay waxee ndax Thiès sa ko organiser àdduna bi yëpp. ma ñu jiital ma Macky Njëgeen day wax ne ma ñëw la jiital topp sa kaw kon nag ñëw ma jiital ñoo may waxloo seen tur wax kon Babacar jërëjëf kontaan naa yal na yàlla kontaan yal na yàlla fay la bég nañ ci délégation bi bég nañ ci kàddu yi bég ci journaliste yi bég ci caméraman yi bég ci photographe yi bég itam ci seeni i kilifa yal na yàlla barkeel seen i sut ci kàttanam ak mbaaxam lu ngeen ci dégg nag muy njuumte rek ngeen xam ne ki bind rek a dul waaye kuñ bind day juum muy man di Pascal di euh, daam di Omar di Ousmane ñun ñëpp daal ku ci juum rek xam ne nit a doon wax waaye yàlla mi bind moom du juum waaw ah, waaye nag nit mën naa juum asalaamaaleykum wa rahmatullahi xanaa suba rek samedi jàmm rek bu kenn manqué damay wax ne guddi yonent bi kenn du ko booleeg sa soxla ndax yonent bu soxlaa olof day wax ne jinne bu soxlaa daqaar ku yéeg ma ne kenn du yéeg <laughs> ah, ah, ndax tàkk-tàkk ee eh, tax doo jege daqaar ga <laughs> waaw yenent bi nag moo soxla kon nag ñëpp uh-huh. biraan ngeen mobiliser ñëpp dolli Macky bu kenn des ngeen boole ci dolli Iran ak dolli Marème <laughs> mu gën a sakkan asalaamaaleykum merci